أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكنز الثاني من كنوز العشرة آه، في فصل حياة الكون آه، وغدا يحمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحامد لا يعلمها الآن فإن محامد الله سبحانه وتعالى بحسب ما تطلبها المواطن والنشآت ila axiri ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sallallahu wa alihi wa sallam kon ñu dellu si fi nga xamante ne foofu lañuy ñuy wax ci alkunuzul ashara ñu ci alkanzu saani muy ñaareelu kanz al euh, kanzu bi euh, ci wàll nga xamante ne moom mooy euh, ci wax wax maanaam xayatul kawni ne adduna bi yëpp dafa ak dund goo xamante ne moom la amee fi ñu gisee ci suñ jotaay yi weesu eh, yegg si woon nañ ci fi ñu doon gisee ni doomu aadama dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne moom moo dajale adduna bi yëpp maanaam kawnu bi yëpp ci moom la tënkoo eh, loolu mooy nekkoon kon eh, doomu aadama bi dafa am wàll goo xamante ne du ci nangu mukk ak mat mais mu am wàll goo xamante ne foofu dina ci nangu ak mat comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee yi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moog yeneen mbindeef yi ñoo ko nuróole mooy côté jëmm ji côté yaram bi côté maanaam biti bi yëpp moom mënu cee max ala kulli xaalin donte moom mooy bi nga xamante ne ci taxawaay nii moo ci gën a taaru moo ci gën a mag moo ci gën a rafet euh, mais nu xoolee ci wàllu ruuxam maanaam ak baatinam foofu lay nangoo ak mat euh, moo tax ci biti ngay gis yu bari di ko dal comme yi ngi maanaam muy feebar bi am ay jafe-jafe di am ay yu dul mën di am yu mu dul sañ ainsi de mais yi nga xamante ne moom mooy côté biiram loolu moom ak mat mën na cee am euh, loolu moom moo tax euh, ndax xadara yàlla bi muy xadaratu ilahiyya muy péyu yàlla bi borom subhaanahu wa ta'ala daf ciy feeñee ci matam euh, noonu lay feeñee tamit ci mboolem turam yi ak ñolam moom borom subhaanahu wa ta'ala ci di ko feeñee ci doomu aadama bi loolu moom moo tax doomu aadama boobu nag moom la def mu nekk xalifaam mu nekk ki nga xam ne mooy xalifa borom subhaanahu wa taala mu daal di koy solal euh, li nga xam ne moom mooy euh, ensemble lu yére leer boo xamante ne maanaam ak da ci amee ak euh, gëlëmte maanaam daf ci amee ak gëlëmte loolu moom moo tax malaaka yi ñoom gisuñu woon bi ñu gisee doomu aadama gis jëmmam ñi kese nii xamuñu woon dëgg-dëgg li nga xam ne moom la làmboo ci biiram Euh, ñoom ñu jàppoon ne euh, ñoom ñi ngi sabbal ci borom subhaanahu wa ta'ala ba noppi di ko taqdis euh, ci anam goo xamante ne dëgg-dëgg jarul woon maanaam muy teg beneen xalifa ci kaw suuf parce que ñoom am na nuñ koy defee borom bi na subhaanahu wa ta'ala di leen xamal ne leen mbir mi dañu noonu ngir ne doomu aadama li mën ci taqdis ci sabbal borom subhaanahu wa ta'ala ci ay xeetu turam ak ay melom ci ni muy ci géej tur yàlla yi ak melay borom subhaanahu wa taala loolu amul benn mbindeef bu ko mën maanaam xattaa ba ñoom malaaka yi xaajuñu bay mën xaajaat xaajaat xaajaat euh, kon loolu mooy na ngir ne doomu aadama maanaam maanaam maam aadama en tant que nit moom moo mën loolu yi dañoo juddoo ci le fait que moom maanaam moom dañoo juddoo ci moom maanaam ci le fait mu nekk nit noonu euh, léegi nag euh, comme que nit ñi ni ñuy sàbbaale borom subhaanahu wa ta'aala euh, ak ni ñu koy euh, ni ñuy ni ñuy ni ñu koy taqdiise di seede ni borom subhaanahu wa ta'aala dafa jiggi dayo ci kell te ba nga xamante ne xel yi mënuñu koo jàpp mu mënuñu koo jàpp ak génn xeetu wàññeeku mënte ci moom ci anam gooku mën ci wëlbati te mboolem xeetu mat yi ci mbindeef yi loolu ak wàññeeku la ci borom subhaanahu wa ta'ala te loola mënta nekk ci yàlla moom borom subhaanahu wa ta'ala maanaam kon loolu yëpp bu fekkente ne day leer nañ maanaam dem na ba nekk loo xamante ne lu biir la lu fës la lu leer la euh, loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy xeetu euh, taqdis bi maanaam loolooy taqdis bi loolu nag kon sabbal gi ak taqdis gi yëpp yëpp dëgg-dëgg boo ko xoolee dafa nekk ci benn melo bu tudd sant ak cant mooy xamdu moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala bi ñu tàmbali ci sóoratul Faatiha bi euh, euh, d'ailleurs bi ñuy def euh, tafsir sóoratul Faatiha bi def na fukki at ci ginnaaw leeraloon nañ wàll boobu tamit maanaam ne sant gi ni nga xamante ne noonu la gënee mat yeneen yi ci des yëpp maanaam ni nga xam ne noonu la ci sabbal nekke noonu la ci taqdis nekke noonu la ci leneen lu dul moom nekke ak tag bi sax ci biir sant et que stratégie ci boppam moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a kawe rek euh, loolu gisoon nañ ko euh, gisoon nañ tamit ne sant borom bi subhaanahu borom bi ci boppam moom sant gi sant boppam ba dara du dara euh, ci ajak jax ca gannaaw mooy moyenee fi ni ca gannaaw bon léegi nag duñ ko loolu duñ ko sukk ci temps duñ ne temps bi moyenee fi ni la parce que temps lu ñu créé la après maanaam lu borom subhaanahu wa amal la ci ginnaaw bi Euh, donc maanaam liñ ci nam rek mooy ba dara du dara maanaam ci aj ak jag ci gannaaw euh, loolu bi nga xamante ne moom la maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa santoon boppam sant boo xamante ne moom mooy sant gu mag loolu moom moo tax euh, borom subhaanahu bu naan alhamdulillahi rabbil alamin maanaam di nekk ci tàmbali suuratul Faatiha ak alhamdulillah dama ñe leena maanaam alif googu du lil istighraq comme ni ko ñenn ñi di jàpp wala lil jën si déedéet istiraaq mooy dafa labal maanaam labal na mboolem cant yi comme ni ñuy wax mboolem xaal cant yi ñeent nangoom comme yooyu wala euh, lil jën si maanaam ñoom am xeetu cant bu bu spécial bu ñu wax déedéet du loolu mais di la ax di maanaam mooy euh, ne cant googu mooy day dellu ci cant ga borom bi subhaanahu wa ta'ala santoon boppam ba dara dul dara et que googu xaqiqatan moom moo génne lépp moo tax baatu alhamdulillahi rek moo ci mën nekk ndax allah maanaam turu yàlla euh, mboolem turu yàlla yi ak melo yi ma li leen sababal te li leen jur moom mooy cant googu xadara boobu nag nga xamante ne mooy xadara cant googu dëgg dëgg foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam euh, moom maanaam ci la ci la ci la nekkee dëgg-dëgg et que borom subhanahu wa ta'ala baatinu cant googu maanaam secret wu sant googu moom mooy dëgg dëgg dëgg moom la amale réalité bi nga xam ne mooy xaqiqa bi nga xam ne mooy xaqiqa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa réalité intrinsèque et que euh, loolu moom ci boppam sax dëgg dëgg moom moo jur yeneen tur yàlla yëpp ak ak melo yi voilà donc loolu moom moo tax euh, cant googu moom mooy vecteur bi nga xamante ne euh, lépp maanaam mboolem réalité yi mboolem xaqaati yi mboolem secret yi mboolem leer mboolem mbir yëpp ci sant googu la jóge mooy sant googu borom subhaanahu wa ta'aala santal boppam et que secret sant googu du kenn ku dul sangi-sang yi sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, turam yu mag yi nekk di wërwërloo ci sant maanaam moo tax turam ci zahir mooy Mahmud turamu baatinam mooy Muhammad turu baatinu baatinam mooy Ahmad maanaam nga gis ne lépp ci sant la jóge Mahmoud mooy ci ñu sant parce que dañ koo sant dañ koo sant ci mboolem melo yi mboolem melo yi rafet yi dañ koo sant d'ailleurs euh, euh, côté boobu mooy ne turu yàlla yi melo yëpp daf koo ràngoo loolu ñu naan al Mahmoud mooy ci ñi sant voilà turu melo yàlla yi euh, yëpp ak melo yi daf koo ràngoo mooy mooy Mahmoud. Euh, ci ci ci ci ñu sante ko ko ba euh, loolu moom moo tax kii euh, Hassan Seydina Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu bi mu naan bi muy wax ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha Muhammad et que ci ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam la ko woy muy saxaaba la radiyallahu anhu mu ne Seydina Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu mu ne Euh, yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam bii may way sang bu mag bii moom day borom dañ koo xaralee turam maanaam wa suqalahu min ismihi dañ koo xaralee yàlla dafa jël turam moom mu xaralee ko tur yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais dëgg-dëgg wax jooju tegtalewul ne benn euh, tur lañ ko xaralee déedéet mais li muy junj foofu mooy mooy li ma leen di wax secret bu mag bi ma leen nekk di dugal nii moom la leen moom la leen di junj parce que li mu ci teg def ni li ñu jillahu ngir mu màggal ko màggal woo xamante ne mbindeef yi loolu da leen di ëlëm maanaam da leen di sukk parce que kii wax tamit bu ñu fàtte ne ab saxaaba la radiyallahu maanaam moom ni muy waxee ak xakaat yi mu ciy dugal day nekk yu kawee kawe mu ne fadul arshi ki nga xam ne mooy borom arsh muy borom subhaanahu wa ta'aala mooy ki ñuy sant ci alhamdulilah c'est-à-dire que kon borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy ki santoon boppam ba dara dul dara te anek jag ci gannaaw moom mooy ki nga xam ne moo santoon boppam ci alhamdulilah moo tax alhamdulilah mooy baat bi gën a rëy ba yeneen ba sax ne yeneen bi sallallahu a wasallam ne lu ñu bu ñu joxoon nit doomu aadama mboolem xéewal yi ak lu mu mën a doon bu waxee alhamdulilahi loolu mu wax moo gën a rëy xéewal yi ñu ko jox ba tax mu naan alhamdulilah ce qui fait que ni maanaam même ñi nga xam ne ñoo nekk biir àjjana bu ñu duggee biir àjjana di sant yàlla alhamdulilahi alladhi azhaba anna al-hazan ak bu ñuy dem ci yoon bi alhamdulilahi alladhi hadana li hadha ak yu mel baa bi ak tomb bi maanaam yooyu yëpp muy wane ci réalité yi moo tax suñuy wax tout le temps dañ naan euh, borom subhaanahu wa maanaam mooy ki nga xam ne moom mooy loolu moom moo tax tak nawet cant comme que moo jiitu lépp te moo mujj lépp loolu mooy symboliser yegg yegg ci yàlla dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xamante ne xolam daa iman day sant yàlla loolu kooku mooy ci yegg ci yàlla dëgg dëgg te kooku moom moo nekk ci xaal bi nga xamante ne xaalu mahabba la maanaam mbëggeel bëgg borom subhanahu wa di ko sant maanaam nga xamante ne jàpp na ni xéewal gi gën a rëy yi ko yàlla defal rek mooy yàlla teg gi mu ko teg ci wetam maanaam mooy rek tout simplement borom subhaanahu wa ta'aala def ji mu def rek moom mu yëg ne moom jege na yàlla maanaam ngéeg yàlla te que euh, yàlla fàttuwu ko voilà loolu nga xam ne day nekk rek di contempler borom bi subhaanahu wa di contempler ay turam ak ay melam di contempler ay xéewalu borom bi subhaanahu wa ta'aala di gis ni ko borom subhaanahu wa defal maanaam mu nekk koo xamante ne suba ak ngoon guddi ak bëccëg mu ngi jàllar bi fu ci ay xéewali borom subhaanahu wa taala maanaam kooku euh, te loolu moom mooy yëg boobu mooy li gën a rëy ci moom te loolu moom muy seen mbóoru yegg ci yàlla dëgg-dëgg maanaam am nga mbir yu bari bari dañ koy wax ci buntu tasawuf maanaam du lu matériel du loo xamante ne par exemple dañ naan affaire baa ngi nii de matériellement dañ koy làmb di ko daj loolu amul ci wàllu euh, spiritualité d'ailleurs spiritualité lañ koy wax mooy loo xamante ne ça ne passe pas dans le monde matériel ça ne se passe ça passe dans la métaphysique c'est-à-dire mbir la yoo xamante ne ci côté métaphysique lay xewee maanaam mbir la boo xam te dafa biir dafa baatu dafa nekk lu biiree et que euh, dafay feeñee tamit ci euh, maanaam fatxu bi borom subhaanahu wa ta'aala defal nit ki maanaam ubbi yi nga xam te ne moom la koy ubbil parce que fatxu du moom ci boppam mooy maarifa maanaam du mom moy xam yàlla ak ñu naan maanaam nand borom subhanahu wa ta'ala du lol moy fakku mais fàq moy buntu bi tax nga meuna am maarifa bobu c'est-à-dire que nit ki du meun am maarifa luddul dul fàq bi ubbi ak rëy ci mom ce qui ce qui veut dire que ni ki la gëna xam borom subhanahu wa ta'ala maarifa moy xam bi ki la gëna xam borom subhanahu wa ta'ala gën la xam réalité yi nga xamantene mom mom mom moy réalité borom subhanahu wa ta'ala réalité turam yeeg ñolam yi gën la xam. réalité yi nga xam ne moom moo aju ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooku daa iman sikk nekku ci la moo la raw moom euh, te foofu la ñuy rawantee sax ñoom ñi ni ko yàlla yi foofu la moo tax moom bu gisee seen morom fii nga xamee ndax kii ñu nag moom ñoo tolloo wala moo ñu raw mooy gis bi ñuy gis ne moo leen gën a yegg fopp ci wàll ci bunt boobu maanaam moo leen gën a am mbir moom loolu moom moo tax Euh, selon niveau nit ki fi mu yegg ak fi mu ci nekk euh, keneen koo xamante ne nitu yàlla pire moom ndekete ab nilaar la maanaam moom ndekete ndekete vrai nilaar la xamul dara su nekkee ak awaam yi maanaam mooy ñi nga xamante ne xamuñu ma affaire euh, bi aju ci loolu moom day daal maanaam du gis côté boobu day jàpp rek comme rek niñ ko ni ko tubaab bi di waxe euh, au roi euh, au royaume des aveugles les borgnes sont rois maanaam lool la quoi mais pour revenir kon ci réalité yooyu noonu nga xamante ne moom lañ nekk di wax ni euh, te dafa am solo parce que en fait bëgg naa tamit insisté ci benn mbir et que souligner ko quoi et yaakaar naa souligner gi ñu koy souligner Euh, mën na am njariñ mën na am njariñ bu bëree bëri bëri bëri bëri mooy li ñu nekk di wax nii su fekkente ne comprendre ci dara dara dara dara <laughs> comprendre woo euh, loolu li muy tekki mooy ne dafa am ay kiiraay yu nekk maanaam ay kiiraay la maanaam moo koy waral maanaam ay xijab li ñu naan xijab loolu voilement la la moo tax boo comprendre mais que insha allahu taala peut-être euh, borom subhaanahu wa ubbi ko maanaam ubbi sa xol nga mën koo nga mën ci am ak accès nga mën ci am compréhension euh, mais plus nga ciy am compréhension plus ngay comprendre dëgg-dëgg li nekk di wax ni lan la. Euh, loolu day symboliser ni yaa ngi évoluer loolu day wane ne dëgg-dëgg yaa ngi yéeg parce que day wane ni kiiraay yi nga xamante ne moo nekk sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala euh, day wane ni kon kiiraay yooyu ñi ngi ñi ngi dañ waaw day wane ni kiiraay yooyu ñu ngi dañ et que ngi ñu ngi wàññeeku maanaam loolu la loolu lay wane et plus ngay comprendre plus ngay évoluer plus ngay gën a jege borom bi subhaanahu wa taala et que li gën a bëri ci wàllu jege yàlla maanaam ak mat yegg ci mat boobu ci loolu lay amee quintessence yu yegg ci yàlla ak mat maanaam ak jege borom subhaanahu wa ci loolu lay amee voilà ce qui veut dire que ni euh, su dee day dóoru ay chinois mooy ne tout simplement euh, dafa am kiiraay yu fi nekk et kiiraay yooyu ñoo di ñëw voilà et que plus kiiraay yi di dañ dootul nekkati ne da xaar par exemple dégg kenn wax ko ci ñi nga maanaam ma wax ko wala keneen wax ko wala nga liir ko feneen wala yeneen dootul dootul soxlaati loolu dootul ko soxlaati ndax boroom subhaanahu wa ci boppam mooy ubbi sa xol euh, ci anam goo xamante ne maanaam day dindi ci raay tamit yow ci sa bopp ngay xam nga koy xam maanaam ngay gis réalité yooyu maanaam nga koy gis ak sa bëtu xol bien sûr pas ak bëtu bi parce que amul lu ci matériel lépp dafa spirituel euh, li tax ñu wax ko nag parce que dañoo gis ne important na parce que damay euh, euh, damay ragal comme ni may déggee souvent yenn discours yi par ci par là ci ñenn ñi ci ak ñeneen ñi par exemple booy waxtaan ak ñoom compréhension bi ñu am ci mbir yi ni muy amee benn xeetu fausseté bu ci am ak benn xeetu xeetu ñenn ñi xeetu gundi yi ñuy gundi waate maanaam ba da ngay ne sax ñii leneen lañ nekk di wax wala ñii ci yeneen mbir lañ ne alors que loolu dañoo noonu alors gënuñu la comprendre mbir yi gënuñu la yegg ci mbir yi gënuñu la ko gis euh, ëppalewuñ la dara mais dañ lay jéem a gëmloo ne la maam di la tuur la ndëm comme ñu rek xam nga bu fekkente ne royaume des des aveugles la moom c'est euh, mu am ay nandite aveugle maanaam ñoo xamante ne ñoom ñooy aati moo nguur gi quoi gëmloo nit ñi ne ñeneen ñi ne leen bon yéen si euh, ci ginnaaw rek ñun ay jàccaar la maanaam fo problème day am voilà te léeg-léeg it souligner ko lu mel nii euh, day dina mën na jàppale quoi mën na am njariñ mën na am njariñ quoi ci koo xamante ne dafa jàppoon ne tamit lii imam Ash-Sha'rani doon wax radiyallahu anhu bi ñu bind al-Yawaqit wal-Jawahir fi Aqaa'id al-Akabir dafa ci bokk ci li mu ci wax maanaam bi mu koy jeexal dafa dafa gis ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko koo defal mu nekk kéemtaan maanaam ni mu bindee téere bi ci benn weer pour mën a dem delluwaat ci référence yi bindaat affaire yi ak xóotalaat mbir mi ainsi mu ne nag parce dafa bokk ci ma ci ci ci ci tax lii tax nit ki. maanaam karaama maanaam loo xam ne kéemtaan la miracle maanaam prodige bu ko yàlla defal merveille ji daf cee bokk mooy yow ci sa bopp nga conscient maanaam nga conscient que ni vraiment li ma yàlla defal lu rëy la euh, te euh, buntu boobu day ubbi buntu day ubbi sant yàlla maanaam day ubbi sant yàlla buntu boobu day ubbi buntu sant yàlla bu bu rëy ce n'est pas pour borom subhaanahu wa taala ci alquran bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ne ko fa amma bi ni'mati rabbika wa amma wa amma bi borom nag li ci aju maanaam amma bi ni'mati rabbika sa xéewalu borom yi fa haddith waxtaane maanaam la nga ko wax li mu ci teg ci suuf boo xoolee mooy alam nashrah laka sadrak xanaa ubbi lu ñu la sa dënn maanaam mooy te ubbi dënn googu mooy jëmmi sax xanaa defaluñ la loolu parce que plus nit di confiant ci borom subhaanahu mu ko yeggale maanaam fi nga xamante ne maanaam kiiraay yi mu dindi ci moom euh, bu mu gis ko te kiiraay yi li koy waral lenn la mooy subuhaat yi ak saxawaat lënt lënt yi la mooy mbir yi dafa jaxasoo affaire yi la ba mbir yi lënt ak li xam ne moom mooy bànneexu bakkan yi nga xam ne dañuy noot nit ki voilà dañ koy noot euh, mais bu la boroom subhaanahu wa ubbilee kii bunt bi et que bunt boobu mu ubbil la ko dépendrewul ci yow nga parfait ci sa doxalin mais mi ngi dépendre ci moom boroom subhaanahu wa moom mu décider ni kiiraay bi dina ko dindi et moom décidé ne dina la xëcc yéegi yéegal la ci xadaraam moom nga bokk ci gaayam yi nga xam ne ñoom ñoo ko jege te nga xamante ne ñoom ñoo ko jege dafa am mbir yoo xamante ne yooyu la leen jagleel te yooyu mu leen jagleel li ci gën a màgg mooy euh, ulum muhammadiyya yi mooy euh, xam-xam yi nga xam ne ko di bi sallallahu alayhi wasallam mooy les sciences mohammediennes et que tout moom la ñu <laughs> euh, moom mën nañ ko tuddee euh, comme mooy mohammadologie ah mën nañ ko tuddee donc mohammadologie et que euh, loolu yëpp mi ngi ci alxuraan ak sunna mais ñaareel bi mooy perfection bi maanaam mooy nit ki ni nga xam ne loolu lay defee effort yi mën yi yi nekk ci possibilité bi yëpp ngir conformé wu maanaam teg tànkam ci sunna yenente bi sallallahu alayhi maanaam teg tànkam ci njàngalem alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi te benn la te benn la loolu nit ki def loolu moom mooy mooy mooy dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam mandarga bi nga xamante ne maanaam mooy li ne mooy xéewal yi gën a mag nit ki nag am conscience ci loolu c'est-à-dire que le simple fait nit ki conscience que ni xam na yoon bi lan la xam na mbir yi lan la mu gis ne borom subhaanahu wa ta'aala ubbee na ko ay domaine maanaam ay domaine mayaadim ay domaine yoo xamante ne euh, mooy comme tool ñun comme naan lii domaine u nangam la lii waa voilà yooyu yoo xamante ne moom ci boppam conscient na ci ne bëri na ñu muy gis wala ñu muy dégg wala ñu mu xam ñoo xamante ne mais xaaju ñoo xaaja xaaja xaaj bay bay bay bay am ci loolu mais loolu nit ki dafa war a taxaw mais di ci sant yàlla ba pare mu gis ko ba pare mu reconnaître ko ba pare mu rendre ci compte parce que xéewal yooyu noonu il il faut pas le négliger il faut pas jàpp ne bon voilà euh, dañuy dañuy ñëw après bon dem nañ quoi non non non loolu jëmmi xéwal la gis nga euh, te li lay wan dara xéewalu ak doo surtout bu jëmee ci borom subhanahu wa ta'ala euh, lu raar day wone ne loolu dafa am doole te dafa am solo li tax ñu taxaw ci mooy comme dañuy wax ci wàllu cant gi di wax ne ah, ba pare mu am relation ak maarifa gi mooy xam maanaam ak nand bo ñu aj ci borom subhanahu wa ta'ala mooy ne nit ki il faut que maanaam yi nga xamante ne d'ailleurs ci kunuuz yi wala ci yeneen yi nga xamante ne euh, dinañ ci dugg ci domaine xaqaati yëpp bu fekkente ne am na en tout cas loo ci comprendre et que yaa ngi comprendre globalité bi ak yu mel noonu loolu mandangal la buy wane ni kiiraay yi ñu ngi ñu ngi dañ voilà kiiraay yi ñu ngi dañ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais saxaaba yi radiyallahu anhum da leen doon yëkkati kiiraay yi ci toog bi ñu doon toog ñoom jàng bi ñu doon jàngal alxuraan jàng bi ñu doon jàngal alxuraan leeral gi mu leen di diine mu yëkkati kiiraay yi te loolu noonu il faut que ñu conscient ne loolu loolu ci boppam amul lu ko ëpp doole ci yëkkati kiiraay nit mën na arrivé ci yëkkati ay kiiraay ci jotaay yi ñu nekk loo xamante ne mën na toog junni ak di ko zikarte du ci yëkkati kiiraay yu toll noonu lu xamul ko waral parce que domaine la yoo xamante ne am ci accessibilité du effort bu nit ki di def yàlla moo koy yenkewal soit yëkkatil ko ko wala boo mu nekk ci environnement boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dëppale na ko ak ñu ko ko yëkkati maanaam loolu fokk ñu sant ci yàlla fokk ñu comprendre que ni du du du du lu du lu maanaam du lu du lu simple quoi du lu woyof quoi du lu tuuti voilà du lu tuuti te euh, voilà du du du yàlla la lu yàlla defal xéewal la maanaam nit ki war a sant yàlla ci loolu Eke apakit de sankya la vogounoun, man anjindou, dey delou ki chanti bunjek kougan. Dey delou ki sante bunjek kougan. Loulou, denyo japon nyerek, souli nye pou don la amjari, me loulou ak amoun louti amrelasyon ak man amouti. maanaam amul relation ak man maanaam lii ma la wax nii réalité générale la rek vérité vérité absolue la voilà vérité absolue la euh, jàppal rek ne borom subhaanahu wa su ko jaaralewul woon ci nga koy déggee fii borom bi dafa loon na la xéewal gu tax nga mënoon mënoon nga mënoon ko amee xelal jeex na tàkk sant ci borom bi subhaanahu wa taala wallahi alhamdulillah léegi Euh, moom Salah dina Tidjara de Bois Ndorobane mu ne wax dara ëllëg ëllëg parce que cant gi ci la tàmbalee et que borom subhaanahu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñoo nekkoon ba dara dul dara et que googu réalité ahmadiyya la bon euh, loo xamante ne bi ñuy ci jeexitalu am na jotaay bu ñu sampoon bi ñuy jeexal Sahih al-Bukhari kii lépp lu am ci wàllu julli ci Sahih al-Bukhari bi. am na ñetti jotaay yu ñu sampoon ngir résumé lépp lu aju ci julli bu njëkk bi dañ cee retracé waat yenent bi saa sallam nan la doon jullee mais euh, dañ ko résumé mais retracé yeneen ñaari jotaay yi ci côté xaqaa'iq yi maanaam réalité baax nit bi bu julli ci lañ ci doon waxtaan rek képp ku ci mën a delloo bu ci delloo dina gis li xamante ne Euh, moom lañ doon wax et que julli ci boppam dafa représenter xaqiqatul ahmadiyya ndax d'ailleurs julli forme ahmad ngay def ngay yor taxaw bi booy rukoo xaa taxaw bi mooy comme alif bi booy rukoo xaa bi booy sujjóot miim bi ak daal bi boo toogee te yooyu position ñoo am ci julli te loolu mooy ahmad euh, am na yeneen réalité yoo xamante ne junjoon nañ ko ci biir ba pare waxoon nañ ko ci position bu nekk ak li nga xamante ne moom la làmboo ak ban relation la am ak lan tay wax ci yëpp ci buntu euh, xakaay ci euh, loolu euh, gisoon nañ ko kon loolu yëpp nga xamante ne moom lañ gisoon ci ci ci wàll boobu maanaam liñ ci jublu pour fàttali ko fii ci ne ah, ah, waxoon nañ ko ci mooy day dalay dalay dalay wan ne na Ahmad maanaam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam eh, réalité am ci bopp daf salaatu faatihi bien sûr moom mooy Muhammad yi la Muhammad yi la rek ah, voilà euh, mooy la réalité muhammadienne en tant que borom subhaanahu wa ta'aala maanaam xéwul bu rëy la salaatu faatihi la fekk ñu am ko in ci ay xeeti cant yoo xamante ne laa ya'lamuha xamu ko al'aana tey euh, loolu nag mën na nekk euh, lu surprendre plus d'un bu fekkente ne mën nañu bàyyi xel ne yenent bi sallallahu daa wasallam daiman euh, da doon day day day maanaam xam-xamam maanaam xam-xamam dafa xam maanaam ulumul Euh, awwalina wal axirina maanaam xam-xamu njëkk ñoom ñu mujj lan lañ mën a waxee ni sant bi borom so te lépp ci ci saanam la maanaam ci moom la génnee lan lañ mën a waxee ni sant yooyu muy sant borom subhanahu wa ta'ala au moment où moom ci bi ba moo tax turam bi loolu la kon naka lañ mën a waxee loolu quoi mais bu yowmal xiyaamee ëllëg moom borom subhanahu wa ta'ala yéen ci dina sant yàlla ci anam boo xamante ne. xamu ko tey jii nii nii nii xamu ko boobaa tontu bi mooy il faut que ñu comprendre que ni borom subhaanahu wa taala dafa mutlaq la dafa absolu maanaam dafa euh, moom <coughs> moom moom borom subhaanahu wa euh, bu fekkente ne. xamal ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam-xamu njëkk ñi ak yu mujj yi xamal ko xam-xam yoo xam ne ëpp na xelu mbindeef yi yooyu yëpp bu dee même bu dee loolu dëgg la mais loolu topp topp maanaam ci kanamu xam-xamu yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamul moo tax mu ne ko wa qul rabbi zidni ilman waxal ne maanaam mu wax ko ne ko na ko ñaan yàlla ne yow sa borom dool ne ma xam-xam d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi yàlla loolu dong la ko wax ne ko ñaan ma ma dolli la ko voilà waxal yàlla defal ma nangam loolu am na mais dolli ma nangam xam-xam rek la ko laaj parce que xam na ni daay man day soxla xam-xamam bi yokku ci borom subhaanahu wa ak xeeti cant yooyu donc plus muy dem yéen yéen bi sallallahu alayhi maam ci géeju nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'ala la boo xam ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem. yeneen bi dañ di fii ci géeju xadara boobu xadaratu zaati yeneen bi saa di fii ci xadara boobu te xadara boobu amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem kon effectivement xam-xamam day yokku parce que saa nekk ñu ngi découvrir ci ay xàqaay ay réalité borom subhanahu wa ta'ala loo xam ne xamu ko woon avant parce que amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem donc day continuer di découvrir di explorer ay réalités voilà exploration boobu nag moo ko yóbbee ba bu yowmal xiyaamee mu amaat ko yeneen exploration maanaam di continuer di fii ci géej googu di am ay xeeti xam-xam ci borom subhaanahu wa taala yuy tax mu koy gën di sant ak ay xeeti sant yoo xamante ne nii xamu ko te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko informé loolu moo ñu xamal ne yawmal qiyaamati nee na boobaa borom dina ko in yenkewal ay xeeti cant yoo xamante ne instant bi ñu xam ko lay wax ni mu ne lu tax fa mu ndax maxaamidallahi xeeti cant yàlla yi ak nan koy santeeg nan koy sante bi xas bi day askanoonteeg maa la nga xam ne taqlubuha sàkku na ko almawaatin bërëb yi wan nasaat ak sos yi maanaam maanaam jëmm yi ak mbindeef yi ak nekk-nekk yi loolu lenn lu ci nekk dafa am euh, particule ci ay réalité wu xam-xamu yàlla ak maanaam ay ay ay ak réalité yi euh, li ñu war a sante yàlla ci ay xeeti turam ak ay meloom ak ay feeñuwaayu nekk-nekkam bu dee ci doomu aadama boo xam ne dafay yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala dëgg-dëgg maanaam ba nekk ci xadaraat ci kalaax boobu nga xamante ne am na bu ñu fàttalikoo buntu bi njëkk euh, al-Kunûz al moo nekkoon ci wàllu taqyid ak itlaq moom ci itlaq boobu mooy absoluté boobu illimitation boobu voilà infinité boobu euh, nga xam ne nit ki bu yeggee ba yegg foofu lay dugg ci xadara boobu. Euh, loolu la amul maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, et que borom subhaanahu wa dafay am benn partie ci particule loo xam te moom lay moom lay yore et que donc selon li borom bi di amal di sosal selon place ba loola di solo selon jamono ji mu koy feeñale day am ay xeeti tur yàlla ak ay melo yu muy manifesté woo yoo xamante ne yooyu tamit day waral ay xeeti cant yu yoo xamante ne yu spécifique la yu jagoo moo tax mu ne fa aatat mu jox nag nas ata aadama sosub maam aadama alayhi salaam wa man asbahahu ak ñi ko nuru min awlaadihi ci ay doomam maanaam maam aadama alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo ko ci doomam yi borom subhaanahu wa ta'aala daf leen bindee noo xam ne daf leen a jox la al ahliyat ak yelloo mooy habilitation prérogative ci la lil xilaafati ci nekk am ak xilaafa mooy wuutu yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'aala loolooy xilaafa mooy kuutuwaay nekk koo xam ne da ngay wuutu yàlla ci boppam fil aalami ci àdduna bi yëpp. doomu aadama moom ci zahir moo wuute yàlla loolu moom euh, comme li borom subhanahu wa ta'ala wallazi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi borom subhanahu wa ta'ala moo leen di def yéen ñëpp doomu aadama yi ngeen nekk ay xalifa yàlla ci kaw suuf mais boobu xeetu xilaafa euh, bu zahir boobu maanaam bu feeñ boobu dafa dafa leer ne doomu aadama mooy xalifa yàlla ci kaw suuf moom la yàlla jox prérogative ak habilitation ci adduna bi ci univers bi loo xam te jox ko keneen ci mbindi fi moo tax moom rek dafay def di dindi mooy tëral ay luwaawam moom mooy àtte moom mooy di di defar di tabax di di di di di xar suuf di ko di ko di ko liggéey di di di dem ci jaww ji di ci teg di ci def ay ay ay matériel am ainsi de suite loolu doomu aadama moo koy def moo yilif mboolem animaux yi ñi ci am doole ak ñi ci néew doole ñëpp moo leen yilif ñi ko ëpp doole maanaam ñi ko gën a mag nga gën koo ngande gën koo diis moom moom moom doomu aadama moo leen yilif di leen bu ko neexee sax mu jàpp leen ñoom ñëpp di leen dugal ci ay soo di leen def loo maanaam ku mu neex jàpp ci rendi euh, ni bismillah ba pare loolu nekk ay tiyaaba ci moom sax sax maanaam lii yëpp doomu aadama la ko yàlla defal ainsi de suite kon ñoom maanaam ci zahir doomu aadama d'ailleurs aajowul sax ngay nekk jullit jullit yi yéeféer yi ñoo yem ci buntu boobu mais ñoom ñoo représenter yàlla fii ci kaw suuf ñoom ñoo yor mandat yàlla maanaam mooy mooy xilaafa mooy mandat man mooy mooy le mandat divin la lieutenance le, le vicariat loolu moom mooy xilaafa voilà et euh, ñoom ñooy mandataire yàlla yi subhaanahu wa Euh, mais am na nag doomu aadama yoo xamante ne ci baatin ñoom ñoo yor xilaafa yi gis nga jotaay bii di ñëw insha allah dinañu ci dugg ci buntu xilaafa ci yaatal mais ñu yeggale insha allah mais ne euh, xilaafa yi lu ñuy wax kuñ naan xalifa ah, du du comme ñun niñ ko yaakaare ah que génn na àdduna la doomam wala pap wala rakkam wala Euh, ñooñu après kooku moom mooy xalifa bi ñu naan yaay xalifa bi nangam nangam euh, ainsi loolu ak nekk xalifa yàlla du du benn de déedéet loolu du benn loolu c'est juste administratif dinañ ko leeral incha allah loolu moom ni ngi mel ne rek ñu ne la recteur mosquée wala recteur université loolu lay nuru rek amul dara lu ci spirituel c'est juste administratif xeetu xalifa boobu c'est administratif maintenant nag en même temps xalifa boobu mën na nekk xalifa spirituellement mën na nekk mais xeetu xalifa boobu jarul sax muy nekk jullit en réalité maanaam bu nekkul jullit wàññiwul lu bari en fait <laughs> <laughs> parce que tout simplement ci kilifa lay rek ci diine ji voilà comme ni nga xamante ne noonu lañ jëlee waa ji naka la tuddati Jacqueline Jacqueline jox ko mu war a toppatoo mbiru jullit ñi ci ci ci ci France bon xaw ma sax ba xam projet boobu fan la mais. Euh, nga xam ne moo leen war a toppatoo ñu régler problème yi jullit ñi mu jiite leen ñu war a toppatoo seen ay problème bopp voilà y compris problème xalaal bi problème yeneen ak yeneen ainsi de suite ñu xool nan la ñuy organiser woo tout ça jaglan jiite leen te jaglan bu jullit loolu seen xilaafa la naka noonu mën nañu tuddee xalifa ñoo xamante ne loolu lool moom mooy seen rôle de du leneen maanaam nañu fi rek euh, rôle yi loolu moom maanaam bu ñu naan xalifa moom loolu taxul ñu wax dëgg dëgg dëgg ci domaine wu xaqaax yi yi moom loolu taxul ñu wax xalifa voilà wax dëgg yàlla euh, mais dinañ ñëw ci xilaafa rawatina ci euh, tarixa tijaaniya bu ñu wax xalifa lan lañ ci jublu ak façon xalifa yi nga xamante ne ñoo ñoo ci am ak seeni niveau seen maraati bi naka la euh, ba nga xamante ne dañuy nekk ala bayyinati min al-amri maanaam ci anam boo xamante ne Euh, dinañ xam bu baax buñ ne diw xalifa la lañ ci nam maanaam lan lay tekki dëgg dëgg dëgg ak lan lañ ci nam euh, kon moom borom bi euh, maanaam doomu aadama bi nga xam ne mooy xalifa nag léegi moom vrai xalifa la ndax dafa nuróo maam aadama alayhi salaam ci perfection boobu parce que maam aadama en dafa ànd ak perfection wuute na lool ak ñi nga xamante ne noonu la ko ñenn ni jàppee maanaam comme état benn koo xam te ne vraiment mooy sunu maam mais dafa sàgganoon parce que dañ ko yóbbu woon euh, àjjana mu sàggana sàggan ba tax suñu toll ñun ñu ngi fii nii di daj ay coono ci kaw suuf alors que mënoon nañ maanaam image bu bon boobu yàlla nañu yàlla sàmm loolu yelloowul sax maanaam euh, ci ci ci ci nit ku ku correct nit ku correct yelloowul ci moom waxuma laa ki nga xamante ne ab yeneen la ci yeneen ci borom subhaanahu wa ta'ala ba pare borom subhaanahu wa ta'ala jël ko mu typifié doomu maanaam eh, nga xam ne mooy xalifaam ci maanaam xalifaam ci bi muy muy doomu aadama muy muy nit muy nit voilà et que euh, caractéristique bu nit yëpp nekk ci moom et que moom mu nekk ki nga xamante ne euh, ruuxu adduna bi dig digg digg à travers moom la la la la mate voilà parce que. loolu moom moo tax sax mu nekk ci asamaan bu njëkk bi voilà parce que à travers ci ci nekk gi mu nekk ci asamaan bu njëkk bi euh, lay amee xeetu administration ci li nga xam ne moom moo nekk ci suuf voilà moom moo nekk ci suñu su suuf si euh, ak ak yeneen voilà moo tabax kaaba gi moom moo voilà moo tax tamit mu am baytul izzati ci muy néeg bu tollo kaaba gi bu mel ni kaaba gi bu nekk ci kaw ci asamaan bu njëkk bi ainsi de suite maam Ibrahima sos am nekk ci juróom-ñaareelu asamaan moom it moom ñu xaritu yàlla bi ainsi de suite voilà yaa am na ay xaqaat yu réalité yu bëri yu làqatu ci ginnaaw loolu mais maam Adama alayhi salaam comme ni ko waxee mooy incarnation turu yàlla yi ay melo comme ni mu ko am noonu la ko borom wax allama Adama asmaa kullaha xamal moom maam Adama. mboolem turam yi te loolu jëmmi loolu mooy salaat faare comme ni ñu ko waxee salaat faare ci boppam loolu lay taw loolu allama adama asmaa kullaha muy six cent seize waaw parce que à travers salaat faare ci la borom subhaanahu wa ta'ala amalee maanaam mooy laa mooy jëmmi réalité ci boppam sallallahu alayhi ci la amalee mbindeef ci la amalee adduna bi ci la adduna bi euh, cosaanoo mais loolu euh, xëy na mën na diis nii ah ci dégg nii ku ku ko comprendre wala ku ko xamul Euh, loo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ne bu ma waxoon nit ñi aarif billah yi sax laa wax réalité yi bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci salat fat ay ngëneelam kon ñoom di lañ ne dañ maa war rendi dinañ ne dañ ma war rendi euh, mais doomu maanaam maam Adama alayhi salaam moom ci boppam moo noonu maanaam kon lépp lu nekk ci univers ci nit ñi ci ci mbindeef yi rek boroom subhaanahu wa Euh, quintessence bi def na ko ci maam Adama alayhi salaatu salaam euh, kon maam ñooñu nga xamante ne tamit dañoo dem ba mat nekk xalifa yàlla comme maam Adama ni ko nekkee woon ñooñu mu ne fa zahara bu ko defee kooku moom mu daal di feeñ moom maam Adama ci sam ak ñi ko nuru ci doomam feeñ bi asmaa'il haqq ci turu buur yàlla bi nga xam ne mooy dëgg gi sax ala kasrati ci bëri taqaabuli haa ay xeeti Euh, anam yi muy nangoo tur yi maanaam mooy euh, tur yi fii nga xamante ne yëpp moom lañu ñu approprier pour pour pour euh, pour manifester wu ci pour feeñ ci tur yàlla yi ak lépp loo xamante ne maanaam prédisposition yi nga xamante ne moom la laaj yëpp man Adama incarné na tur prédisposition yëpp moom Adama matal na ko alayhi salaam bu ko defee mboolem tur yàlla yi mën a manifester wu ci moom maanaam. parce que bu ñu nee xamal na ko ko mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala manifesté na turam yëpp ba moom aadama xam leen yooyu tur yëpp ba ràññeet na leen ak seen ay réalité seen ay xaqaay kon loolu du lu tuuti moom aadama du ko du du du du ñàkk teggin la sax d'ailleurs euh, ci ñuy waxee noonu di tudd moom aadama di wax di di di di ko tuddee noonu quoi di ko wax Euh, façon waxin woowu yi nga xamante ne moom la ñu bari bari euh, di waxee ci maam Adama alayhi salaam euh, di am ay actes yu bari yu ñuy tëral ci moom te ki koy wax kat moom bu gis ni moom propre baayam bi ko jur ñu ngi wutaw utiliser même terme yi muy utiliser ci maam Adama di ko utiliser ci propre baayam lan ngay xalaat ci nga xam ne mooy baayu mbindeef yëpp alayhi salaatu wassalaam nekk yeneen boole ci. dégg nga kon non seulement dafa am prédisposition yëpp pour mën nangu manifestation turu yàlla yëpp waaye wax xakama muy àtte bil xaqi ci maanute ci dëgg wala àddina ak maanute maanaam moom ci dëgg ak maanute lay àtte mu ne wallaahu te buur yàlla huwa moom ci boppam alxaq muy dëgg wala àddilu te moom ci moom mooy maanute kon da gis ne ay turu yàlla ak melo yàlla moom lay taxawee di acté ci kaw suuf c'est-à-dire que kon euh, turu yàlla yeeg melo yi nga xamante ne moom la incarné yëpp ci ci ci ci ci baatin daf koy manifester ci zahir mais daf koy manifestation boobu principalement ci ñaari mbir lay jaare lu mat a bàyyi dëkk ak maanute muy justice voilà la vérité vrai, la réalité et la justice, et la justice, l'équité. Voilà. dëgg ak fu mu mën a dal dal na la dëgg ak fu mu mën a jóge mooy dëgg dëgg du topp mukk bànneexu nit ñi abadan da ko yor trajectoire am képp koo xamante ne lamb na la ci trajectoire bi yow yaa ci bokk ku mu fekkul ci trajectoire bi bokkoo ci moom digg moom du tànn kenn moo koy moom déedéet nit ki moo naan lii mooy dëgg man maay dem tànn ko mais dëgg du la tànn abadan dëgg ak maanute justice bu yàlla koo amul maanaam maay diwa fii laa dëkk fee laa juddoo diwee sama baay mooy sama maam ak euh, nii laa mel dama yor alal dama am lii xattaa wàllu yu yàlla lu mu rëy rëy rëy mbir bu nekkul ci dëgg maanaam bu amul dëgg amul dëgg rek parce yàlla ci bopp mooy dëgg te yàlla du topp bànneexu nit ñi nit ñi ñoom ñooy jaamam maanaam yàlla du jaamu kenn nit ñi ñoom ñooy ay jaamam moom yàlla te li mu def moom yàlla du fi nekk di topp caprice nit ñi déedéet gars bu amé amee seen ay caprice yàlla du topp loolu déedéet moo tax yuxrijul min al mayit wa jom mayit min al hayy moy jenne luy dund ci lu dé mo jële lu dé ci jenne ci lu dund Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan ne mooy loolu day tekki ne moom borom subhaanahu wa mooy jël ab yéeféer génnee ci nit ku jullite nitu yàlla mooy jël tamit nit ku jullite nitu yàlla pire mu génne ci moom yéeféer yàlla fi muy def ay xéewalam allahu a'lamu haythu yaj'alu risala yàlla moom mooy xam exactement ana fan lay def risala kan mooy nekk yeneen tam nit ñi duñ ko ko tànnal kan mooy nekk wàllu yoon nit ñi di ko ko tànnal kan moo nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nit ñi di ko ko tànnal moom yàlla moo koy tànnal déedéet ku jàpp ne même même kay leen moo leen benn affaire bu ma fi jógee diw moo may donn lu ma yor moom moo ko yor loolu sax yàlla du ko nangu déedéet nit ki sax amul tànne ne bu ma fi jógee diw moo may donn loolu yor mbiru yàlla la yàlla mooy xool ana kan moo ko doy mu jox ko voilà tout simplement après gars yi kontaan nañ wala kontaanul ils sont satisfaits du choix divin waaw wala déet loolu ñoom après ñu gérer ko yàlla moom dëgg mooy dëgg te moom mooy justice moom mooy la juste le juste al adl al haqq al adl képp nag koo xam ne da nga incarner laa fa googu da ngay incarner cette vérité là da ngay justice maanaam loolu mënta du jaas loolu mënta ñàkk loolu moom mënta ñàkk voilà après gars yi kontaan nañu wala kontaan nañu bon bon gérer ça entre eux après ñoom dinañ ko gérer quoi loolu ak état d'âme la ak ay ay xeeti caprice quoi mais loolu. motax nit ku bëgg maanaam motax tax loolu tam bokku na ci ni ñi xamé loolu dañ ci xamé ni ku bëgg nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ku yalla samp ci kaw suuf faaw nga nekk ko xamantene sa yoon du nekk ci euh, caprice nit ñi ak seen ay euh, euh seen ay émotion voilà yow dal dëgg rek na la ñor yalla lan la bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la jàngale jeex ku ci conforme wu baax na ku ci conforme wul bon garawul quoi na nga def garawul maanaam nit ki fii mi ngi bàyyi xel trop waaw mais xam nga après nit ñi dañuy kii xam nga rek après nit ñi buñ ko déggee xam nga lii nit ñi buñ ko gisee bon c'est sax dëgg la mais bon xam nga rek après affaire yi dafa laaj tamit diplomatie waa yooyu dëgg la mais ci kaw mu bañ a tax ba dëgg gi laqatu mu bañ a tax ba dëgg gi toxu mu bañ a tax ba yow nga bañ a teg sa ci dëgg loolu dëgg la de diplomatie baax na rafetal baax na maslaa baax na wax ni waxi yëpp dëgg la mais ci kaw loolu yëpp maanaam bañ laa pousser ba nga teggi sa tànk ci dëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ko fi saa waaw ñun sax xam nga soo bëggee sax waaw léeg-léeg sa yàlla yi sax xam nga yow yàlla bi ngay wax ne dañ ko war a jaamu sax waaw d'accord mais bon suñu yàlla yi suñu maam yi bàyyi bon xam nga suñu maam yi aussi il faut pas que ñu ci liñ nekkoon baaxul quoi mais baaxul suñu maam yi liñ nekkoon baaxul où est problème alors mu ne euh, xam nga suñu maam yi liñ nekk xam nga faut pas dire ça quoi xam nga euh, et puis c'est daal xam nga. voilà euh, et puis grawul quoi su fekkente ne da bëgg nguur sax ñun mën nañu jox nguur quoi xam nga ñëpp ñu dëppoo ne mais nga bàyyi kan suñu aaday maam suñu maam ne lu ne lu bi ne ko wan du law nooyal rek ñoom it ñu nooyal voilà maanaam ñoom jàmmarloo bi ñuy jàmmarloo yow ci dëgg yëpp lenn rek ko ko waral mooy ñoom bu ñu sañoon da ngay nooyal yow bon nga naa di voilà ne bon garaawul xam nga affaire faut négocier nangam nangam bon voilà c'est vrai que yàlla lii la bëgg bon naa ko wàññi tuuti quand même mais bon xam nga après et après ñoom ñu daal lay fekk ci tuuti ñoom tamit ci xam nga maslaa tuuti voilà après ku nekk nekk ci caaxaan yoo xamante ne day nuru dëgg ci biti fekk ay caaxaane loolu bu ko kenn jaral kenn ci àdduna voilà bu ko kenn jaral kenn ci àdduna voilà comme li imam al doon wax rek rahimahullah wa mu ne ki gën a perte ci nit ñi mooy maanaam loolu wax la du résumé vraiment affaire ki gën a ci nit ñi mooy ki nga xamante ne moom àddunay boppam la jëndee àllaxiram maanaam moom ah ay intérêt addunaam moo tax ba mu compromettre carrément àllaxira mais foofu ci ko gën a perte mooy ki nga xamante ne addunay jàmbur la jëndee àllaxira moom maanaam bu doon addunay boppam sax ñu ne xëy na addunay boppam la moom bénéficié la ci déedéet mais euh, maanaam ki nga xam ne c'est que loolu moo gën a impressionnant maanaam ki nga xam ne moo lay def jaam yow ki lay wax ne la mais non bu nangu mu def la jàmm parce que yàlla rek la moom kenn mu la ko dul yàlla maanaam yow kooku ngay wëlbati ko mere ko maanaam ki naan la bu nangu ko la def jàmm yàlla mooy sa borom moo la moom yow kooku nangu keneen moom la bul nangu kenn def la jàmm bul nangu kenn dugal la ci caaxaan bul nangu lu dul li yàlla bëgg nga nekk ci. yàlla yeneen bi saa sax la yabal bul nangu keneen jël la moom la bul nangu kenn xañ la sa liberté boobu parce que yàlla rek moo la libéré yeneen bi sallallahu dafa ñëw pour libérer la bul nangu liberté boobu la yàlla jox yow nga wëlbatiku jël sa bakkan wala sa baat jël ci ak chaîne dem jox ko koo xamante ne dëgg dëgg ay intérêt rek a ko xol man nangu loolu mais loolu nit ku yeewu sax du ko yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm voilà voilà après nag fan la ñuy day day nga moom moom moom moom fonk ñi bëggul ci yooyu lañuy wax man euh, loolu yëpp garaw li garaw mooy ñàkk dëppoo ak yàlla ñàkk ñàkk dëppoo ak li yàlla bëgg li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëgg léegi nag yow soo dëppoo li yàlla bëgg ak li yeneen bi bëgg li yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wasallam dëppoo nga ak mbooleem ñoom ñi ñuy wax ay mag ñu baax maanaam mag ñu baax ñooñu yow yaay ci leen représenté bu fekkente ne dëppoo nga dëgg bu dee dëppoo nga ak alquran ak mag ñu baax ñooñu yow yaa leen représenté voilà même bu fekkente ne adduna bi yëpp wax nañ ne yow représenté woo leen wax nañ ne euh, yow da ngay yow bon xam nga comme que kii nangam da da ngay di ngat di ngat dara nekku ci di ngat dara nekku ci yeneen yi alayhi salaam dañ di ngat bi yeneen yi alayhi salaam bu ñëwee ci benn peuple li ñuy njëkk def mooy di ngat loolu la ñuy njëkk def di ngat la ñuy njëkk def yéen li ngeen nekke baaxul seen baay seen maam yi liñ nekke baaxul biñ nekkoon baaxul moo tax bokk na ci yeneen ci saa yi gaa dañu wax mais da nga bëgg a wax ñoom ñuy safara quoi mais bien sûr ñuy safara kay lan lañ fi def bokkaale yàlla mais kooku bu dugul safara fu mu mais c'est-à-dire que <laughs> dëgg du tànn kan kan ci kan lay appliqué wu. wala nit ki bi ñoom ñooy tànn ci kan la dëgg di appliqué wu déedéet dëgg moo fi nekk di appliqué ci képp kenn exemple bi ñu koy faral di joxe mooy scanner. Euh, scanner yi nekk ci hôpital yi nga xam te ne ci ñëwee ne damay seet sama wér gu yaram ak yooyu dañ naan la duggal nga dugg affaire bi scanner la résultat bi seen yi génne solo scanner bi dëgg gi tam noonu lay demee cest à dëgg mooy scanner bi képp ku ci dugg résultat bu génnee après yow yow loolu mooy sa poids yow loolooy sa valeur résultat bi biin jaar ci dëgg moo lay wax yow yaay kan yow yow sa valeur lan la voilà léeg-léeg it ñenn xam nga ñi mbooloo mbooloo man mboolooy caaxaankat yi ñoo gën a bari mboolooy ñi nekk ci dëgg loolu moom dafa leer maanaam kon diingat maanaam nit warta ragal ñu ne ko da ngay diingat parce que diingat dafa baax mais nit ki sax moom baaxul yenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon diingat yenent bi alayhi wasallam dañ doon diingat voilà comme li Cheikh Hadji Malick wax radiyallahu anhu ci xilal bi min ba'di sabbin wa tadlilin wa tafsihatin axfaw lahu kullama axfawhu min idami yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi min ba'di eh, sabbin ginnaaw ba mu ŋaññee seen yàlla yi wax leen wax yu ñaaw wa tadlilin sànkuloo leen ne ñoom seen bàyyeeg seen seen xel yi ak seen bàyyeeg seen maam yi ci li nekkoon dara baaxu ci yoon wi ñu tegu dara baaxu ci wataas fi hatin ba pare mu dobloo seen xel yi ne yéen seen xel yi dara ñëwut loolu ba mu amee ne ko yow kon suñu maanaam suñu culture ngay dàq quoi suñu aada yi quoi suñu mais axfaw lahu kullama axfawhu min ism axfaw lahu ci lañ ko feeñale kullama axfaw mboolem lañ ko nëbbaloon min ism ci nooneel ñoom liñ bëgg mooy koo xamante ne da ngay nekk fii di négocier di midi wër boo naree wax dara tax nga wiiri wiiri ba sax doo ko wax nga wax leneen loolu nit ku yeewu du ko def nit ki daa war a gëm ne laa ilaha illa mooy wax di dëgg bi yàlla rek kay buur keneen du buur yàlla rek mooy yàlloo ñu jàmm ko loolu wiiteel yàlla boobu mooy ne yàlla rek ka ma moom keneen nag moomu ci mbir mi mënta wëlbatiku ba keneen moom ba ku dul yàlla maanaam noonu la nit ki di gëmee mbir mi euh, moo tax affaire xilaafa bii nii dinañ ci ñëwaat insha allahu taala euh, ci anam goo xam te ne leeral dëgg-dëgg xalifa nan lay mel xalifa yenn ci bi sallallahu alayhi wa sallam nan lay mel parce am parce xilaafa dañ dañ dañ koy wax di ko joyal ci ci baat yu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 masalan tey man su ma leboon xaalis mu am benn valeur masalan muy cent mille euros wala dara benn banque banque bi teg ma ci intérêt ma fay intérêt ba mu jeex ak xaalis boobu mu jeex loolu ma investir tey euh, dafay continuer di xaraam ngir riba bi wala boob ndax dama koy maanaam bu dee am na istixlaal bu ci mën a nekk nan laa koy doxalee nañ koy kiwee bu dee nit ki rëccu na ko daal maa ngi jégg wala wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wala euh, genre yu mel noonu euh, li nga xamante ne moom la nit ki mën a def maanaam su fekkente ne dafa leboon xaalis euh, ci banque bi après mu wëlbatiku maanaam loolu xam nga dafa xaram et que loolu yëpp riba la tudd ndax kullu qardin Euh, maanaam bor boo xamante ne dafa xëcc euh, intérêt maanaam nax ko mooy njariñ loolu la ñuy wax euh, riba nit ki kon su fekkente dafa utiliser xaalis boobu alal jooju ba mu jeex maanaam ba nga xamante ne léegi fay na intérêt yi def na lépp ba pare su fekkonte fayagul lépp ba mu pare ni muy def moom mooy day day libéré ci bor bi maanaam day delloowaat bor lépp mais comme que loolu mënta ne et que faut mu fay intérêt yi ba pare maanaam parce léegi dañ lay njatt léegi loolu noonu daf koy fay fayinu koo xamante ne euh, dañ koo njatt ci tool maanaam xeetu fay boobu rek la ko mën a fayee maintenant su fekkente ne dem na nag ba investir ci ba pare ci ba lépp nag li nga xam ne moom la Alxuraan di wax ci bu bon bunt boobu mooy ne ginnaaw bi xam naa ne ah léegi wax dëgg yàlla li ma defoon bi dafa xaram et que ndekete baaxul à partir de ce moment-là lenn rek moo koy dese moom mooy tuub ci boroom subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko boroom subhaanahu wa taala waxe ci ginnaaw bi ne falakum ru'uusu amwaalikum laa tazlimuuna wa laa tuzlamuuna ni maam seen bopp alal moom ngeen di dese bu boobaa doo bu leen tooñ doo leen tooñ te duñ leen tooñ maanaam loolu mooy su mu mënoon a delloowaat euh, mbir mi maanaam su doon intérêt bi ci beneen côté bi la nekke boobaa damay delloowaat intérêt bi yëpp ci ci ki nga xamante ne moom ma ko joxoon mais comme que man maa ko joxe te aw ma leneen lu mu mën def lu dul loolu bu boobaa jëm ni alal yi tuub rek laa ci mën a def borom bi subhaanahu wa ta'aala di ñaan borom ci def yëpp euh, moom euh, moom mën a nekk wallahu ta'aala a'lam d'accord kon su ma comprendre mooy bu dee bor bi jeexagul day jël bor beeg lépp maanaam désengagé day arrêté lépp ci crédit bi complètement ci bàyyi noonu quoi voilà voilà ah, ok macha allah am na yàlla xëy ko bëri jërëjëf maa ngi jaar bu baax jazakumullah ci question aali boobu li ma bëggoon laajte rek mooy par rapport ak euh, kii bi mu doon wax engagement bi mm-hmm. bu dee remboursement day am mm-hmm. ndax waa ji day remboursé ba hauteur xaalis bi ñu ko joxoon mu bañ a delloo intérêt yi mais mu delloo à hauteur de ka nga xam ne en tout cas mu yem ak li ñu ko joxoon moom mm-hmm. waaw loolu lay def maanaam day delloo li nga xamante ne moom mooy lañ ko joxoon lépp lay jël delloowaat ko léegi nag euh, intérêt bi su fekkente ne moom après tool mën na ci am maanaam ñu forcé ko ni ko par force da ngay fay intérêt bi dañ lay teg daan sàngam ak yooyu bu boobaa day obligé di fay intérêt bi maanaam mais alal jooju ci bokk moom bu bu mu ko utiliser di ci def lenn lépp loo xamante ne invest maanaam investiru ko woon ba pare bu mu ko ci def mais su fekkente ne effectivement lu mu investir comme tey par exemple bu kër la bu mu jënd ba pare léegi li muy def moom mooy kër gi ci boppam lay jaayaat léegi su jaayaatee kër gi euh, day delloo valeur li njëg gi li li mu am maanaam njëgu kër gi lay lay lay lay lay lay delloo boobaa maanaam fayaale intérêt nga xam ne moom mooy li mu dese woon xam nga souvent ñoom buñ la ko jaayee ni day am ay intérêt day am ay kii comme tey par exemple koo xam te dañ ko ko su sur vingt ans mu dem ba quinze ans mu comprendre que ni ndekk lii daf xaram léegi moom day jaay kër gi xam kër gi day am valeur léegi bu ko jaayee loolu lay jël mu daal di fay li nga xamante ne moom mooy euh, mboolem li nga xam ne moom mooy li des léegi nag li ci des ndeyu alal jooju léegi moom mooy ci nga xamante ne moo ko moom léegi à part de ndeyu alal jooju nag bu bëggee beneen kër mu dem wuti ci beneen kër bu bëggee loué mu dem loué ji ainsi de mais su fekkente ne intérêt bi parce que intérêt soit dañ lay forcer nga war ko fay soit day nekk loo xamante ne forcer wuñ la bu dee dañ la forcer nga war ko fay loolu moom dafay fekk ne euh, maanaam dañ la tooñ maanaam mënu ci dara quoi dañ la tooñ bu boobaa da ngay joxe li nga xam te ne moom mooy li aju ci intérêt yi bu fekkente ne nag mën nga ci dara bu boobaa intérêt bi moom ngay moom ngay euh, euh, maanaam bu dee mun nga bañ a joxe intérêt bi doo joxe intérêt bi maanaam tey boo ko seqoon ak jullit nga expliqué ko na bon lii riba la woon daganul nangam nangam day daal di comprendre que ni riba la nga daal nga daal koy jox sa alal maanaam nga daal koy delloo alalam rek maanaam bu boobaa cosaanu alal yi rek nga koy delloo doo ko du du nangu moo tax alquran ne falakum ru'uusu amwaalikum seen ndeyu alal ji rek ngeen moom maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy li nga leble woon ci cosaan comme tey su ma la lebaloon ba pare ne la da nga ma ciy tegal 500 euros intérêt ñun ñaar tey bu ñu demee ba xam ne lii baaxul li ñu def mooy mooy da nga ci ay dañ lay njëkk ci ay juridiction yi ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñoom ñoo ëpp doole bu boobaa mënoo def leneen lu dul maanaam euh, rembourser alal doole parce que sinon problème bi mu lay jural day rëy lool maanaam te boor boobu day daal di nekk loo xam ne da lay tegu même bu dul tegu ci kanamu yàlla mais dalay lay tegu ci kanamu luwaa bi te bu boobaa li mu lay indi ci ay préjudice moom day rëy lool loolu bu boobaa ni ngay def mooy nga jox ko lépp maanaam ak intérêt bi yëpp nga xam ne moom moo ci nekk nga jox ko ko ci yéene yi tout ak débarrassé wu ci euh, ci lii nga xamante ne moom mooy li am relation ak riba bi yëpp nga débarrassé wu ci bu ko defee après nag euh, nga daal di mën a doxal sa leneen li ngay doxal wallahu ta'ala a'lam waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ziar maa ngi jégalu dafa am lu ma di fee comprendre si question bi mm-hmm. mooy par exemple su nekkee damaa jëndee 1000 euros moo am intérêt 500 euros mu nekk 1500 euros. waaw est-ce que su nekkee amaat naa possibilité jaayee 2000 euros sachant que day des benn 500 euro boo xamante ne nii su ma remboursé lépp day des ci xaalis bi nga xam ne daganul woon est-ce que loolu dinaa si am possible droit. non li nga xamante ne moom mooy d'accord bu ko defee soo ko jaayee mille mille cinq cent euros nga daal di rembourser mille cinq cent euros yi benn yoon nga génn ci problème bi ñu parce que bu defee lépp loo xam ne dafa am relation ak riba bi maanaam mu bañ am lenn loo xamante ne yow moom nga ci tax. Ah, d'accord jërëjëf voilà. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi di ñëpp. man itam damay dugg ci laaj bi parce que dafa am euh, question bu nga xam euh, entre par exemple si SICAP wala HLM lay par exemple kër millions CFA. Mm-hmm. kër googu ñu lay jaay quinze millions CFA yow dem ci banque mais ñoo la jaay. Mm-hmm. xobit xobit 15 millions de fay mais buñ leen dañ sur par exemple quinze ans.

Euh, su fekkente ne da ma koy fay léegi nii cinq cent euros la nga ma koy nga koy jënde mais su fekkente ne dama koy fay danga ma ko bëgg a fay mën naa la ko étaler par ay mois mais bu boobaa six cent euros lay doon yoo xamante ne chaque weer nga may jox cent euros moom mu mat maanaam euh, loolu li li li li ci am solo rek moom mooy ñu définir mbir mi à partir de moment bi njaay mi di façon c'est-à-dire que euh, mënoo ne par exemple dama la koy jaayee mooy ne yeneen bi saa xam dafa dafa dafa tere ñaari jaay ci benn jaay ñaari contrat ci benn contrat euh, mooy lan mooy munuma tey par exemple ne la euh, dama la koy jaay cinq euros laa la koy jaayee euh, mais que soo ko jaayee su ma ko par état par maanaam 100 euros par mois 100 euros par mois pendant six mois nga ma koy jox bu waa da daal di nekk six cent euros munuma tey par exemple Euh, maanaam munuma tey nga ni ma loolu mbir mi noonu lay deme et euh, euh, yow amul dara lu tànn maanaam bi ñuy signé contrat bi dama ni la rek bii la wala bii te amul benn choix bu précis buñ def loolu moom rek lañ ciy tere loolu moom moo xaram mais tey su fekkente ne am na choix bu ñuy retenir daal ni ok bon écoutez sama 500 euros yoruma ko fii donc damay opter pour beneen solution bi bu boobaa muy 600 euros. loolu boobaa dana dagan maanaam loolu day wëlbatiku ci eh, cas de figure bi nga xam ne moom nga wax loolu bay taxsir la dagan na xamuñu borom xam-xam boo xamante ne wax na ne loolu daganul ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wallahu ta'ala eh, jazakallah khayran hmm. ah, foofu par exemple yow solution tukki bi eh, justement loolu li ko wutalee bu fekkonte ne dañ laa lebal xaalis bi mooy ne fii dañ laa jaay kër gi ba pare étaler la ko alors que fële dañ laa lebal xaalis bi ba pare étaler la ko boobaa riba da ciy dugg ndax day dugg ci yi nga xamante ne moom mooy asnaaf riba wu yi yi nga xamante ne te lool daf ci bokk al ayn mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, or ak xaalis voilà or ak xaalis yooyu dañ ko loolu riba da ciy daal di dugg maanaam ay xeet la yoo xamante ne te di ciy dugg te euh, mooy ak lépp lu am valeur fiduciaire voilà mooy euh, euh, saman bi mooy lépp lu am valeur fiduciaire loolu day daal di am euh, riba da ci daal di dugg or xaalis dollar CFA dalasi india yen ainsi de livre voilà yooyu euro CFA voilà yooyu riba da ci daal di kon loolu moom moo soo ma la ko joxee nga dem jënd ci kër gi yëpp en en réalité xaalis bi maanaam yow léegi xaalis ak xaalis nga fi am nga am contrairement ak tey su fekkoon damaa defar kër gi ba pare jaay ma loolu foofu la lay wute wallahu taala alam waaw sëriñ bi euh, amoon na laaj ci six cent euros yooyu ñu étalé. waaw comme souvent ni ñu koy gisee ñun ci suñu société yi contrat yu mel noonu bu amee parfois dañuy def bu dee da ngay rembourser cent euros par mois parfois ñoom dañ ciy dugal. seen ni cent euros yi bu tardé par exemple man nañ la teg daan. Hmm. bu boobaa est-ce day daal di xaraamam de. waaw lool day xaraam ci ci loolu moom day xaraam bu fekkente ne ci l'islam la loolu dafa xaraam loolu mënta nekk loolu mënta nekk ci l'islam loolu moom moo tax loolu tamit na euh, na ko soit na ko jëflanteeg ñoo xamante ne euh, duñu duñu dugg ci ci kii boobu ci xeetu loolu mais comme ci société yi comme ni nga ko gisee. loolu da ci am comme boobaa yow mi nga xamante ne yaa dugg ci contrat boobu il faut que nga def tout pour def lële maanaam pour euh, <clears throat> voilà euh, comme comme la alxam wa in kaana zu usratin fa naziratun ilaa koo xam ne dafa nekk jafe-jafe boobaa dañ ko war a xaar ba keroog muy am yombal maanaam mais duñ ko teg ay daan duñ ko teg ay pénalité comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci suñu société yi donc yow mën nga def choix boobu de mais sous condition que nga bañ a am benn pénalité sous risque que ni alal ji ci boppam maanaam ak xaram daf ci daal di dugg wallahu taala waaw bi moom mooy sama dernière question bu ñu ma yóbbante la mm-hmm. euh, bu dee euh, dama amel nit bor mm-hmm. euh, par exemple cinq mille euros mm-hmm. mu mat at est-ce que cinq mille euros yooyu dama koy génneel dañ ci génne asaka bu dee aussi dama ko koy rembourser en plusieurs fois léegi bu dee dañ ci génnee asaka bu dee remboursement bi en plusieurs fois la dañ koy génnee. voilà léegi boo yi dañ cee wute bu dee fuqaha maliki rahmatullah ñoom ñaare li ñuy faral def rek mooy dañ naan benn yoon lañ koy génneel asaka euh, léegi euh, li nga xamante ne euh, moom mooy teqantal bi nga xam ne amaan amaana moom lañ ci gis ne moom mooy bi gën a dëgër incha allahu taala. mooy ne dañuy xool ndax nit ki am na yaakaar ci jot ci alal ji waaw wala déet su fekkente ne am na yaakaar ci jot ci alal ji bu boobaa faaw daf koy génneel azaka ndax daf koy boole ci alal ji mu denc maanaam day yor àttee alal ji mu denc su fekkente ne maanaam euh, euh, yaakaaru koy euh, yaakaarul ne dana ci mën a génne azaka maanaam yaakaarul ne dana ci mën a jot bu boobaa du ko génneel azaka léegi su fekkente ne comme cas de figure yow yi nga wax li muy nuru mooy ne waa ji moom am na yaakaar ci ne dana jot ci alal ji maanaam loolu mooy cas de figure yow yi nga wax bu boobaa ni muy def moom mooy day jor ak tey loo xamante ne euh, alal ji mu denc la maanaam ndax xam na ne euh, diw dina ko ko joxe ji nangam maanaam moo tey alal juñ jëloon moom bu mu jëloon denc ko fenn ñoo yor ñoo bokk ak kepp voilà bu mu bloqué par exemple moom alal bu mu bloqué ci benn compte ñoo ñoo bokk àtte wala alal bu mu dugal ci benn dafa ñoom ñoo bokk àtte wallahu ta'ala a'lam